Salaamaaleykum, bonjour tout le monde. Euh, nous sommes au lycée de Koki, récemment construit et inauguré par le Premier ministre M. Amadouba. Je me présente, c'est M. Mamadou Gaye. Je suis professeur d'anglais au lycée Maréchal de Louga. En même temps, natif de Koki, Koki laa dëkk. Donc damay def vidéo bi pour benn requête, un cri de cœur. Ndax dañu nekkoon fii CEM de Koki di fi jàng ba am fi BFM ñu naan CEM de Koki ba lycée amaat ñu naan lycée de Koki ñu xam ni Koki ñàkkul ay personnalité ñàkkul ay jàmbaar yoo xam ni mën nañ leen a tuddee école bi ñu gis nag kooki mu am ci ay infrastructure ni mu doxee ci fukki at yi euh, douze ans ci ginnaaw yi wala dix ans ci ginnaaw yi mën na toog trente ans du ko dox loolu nag dëgg la dëkk barke la waaye suñu borom dafa dogal lépp lu muy def rek dana am ci loxo yi muy jaar kenn ku ne xam ne ne am na benn doomu dëkk bi boo xamante si nii muy colonel Maïs Sélé Ndiaye à chaque fois il fait tout lu baax lu ne ñëw kooki pour man nag benn manière lañ ko mën a rendre hommage mooy lycée bii ñu def ko ci turam parce qu'il le mérite il bokk beaucoup fait pour ce village il a beaucoup fait pour dëkkam monsieur le président da la koy ñaan loola yomb la te ku la jege la te nekk na loo xam si ku boo ko defoon kooku dana ci gën a sikki dëgg la nag du homme de tenue la nekkul ci système éducatif bi waaye Sénégal gis nañ ni sergent Malamine Camara tuddee nañ ko lycée muy Limodak lycée moderne de Dakar kon pourquoi pas lycée bii cig dundam ma Sélé Ndiaye ñu def ci turam muy frotté fii ñu xam ni kooku moo ko delloo donte moom xaaru ko woon waaye bu mu ñu gën a gore kon monsieur le président de la république dal la koy ñaan loola yomb na ci xef ci xefinu bët rek ba jëloon décret léegi ñu tuddee ko lycée jërë